ولم يتورع عن حلال ولو حلال ولم تلفيه في غالب الوقت يشبع أنا خذ أشد حياء وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفيه في غالب الوقت يشبع ويركب أحيانا جوادا ومرة قد قاءت فالشم أرفع أمركم فأهوى كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أقواما والأصوات ترفع فش الأفان المسكين يدعو جميعا وبالله مولى القلق ذا القلق يجمع وأكرمهم مولى أجل كرامة وقصصهم من للخلائق ينفع شارق وغنت حمامات نهر الحسن تسجو أبرق بلا باين وما رد الديم الدهري عن ساعة التي ويسجو ويسجع وآل وأصحاب مدى القول شيق أبرق بدا نحو المرابع يا الله أبرق بدا نحو المرابع يا الله أريد بخير قلب خير مرائي نفع الشك والأسواء وكل مرائيا أريد بخير ضال خير مرائي نفع الشك والأسواء وكل مرائي وهي الشوق والمحبة ودنا وأرقني إذ أهل خبائي أريد بخير الخلق خير مرائي يؤنسني ترثي ونفسي ونخلقي جهارا وقلبي أنس بشفائي أريد بخير الخالق خير مرادي الراسة والاسواق والمنبرات محمد مختار الإله نبيه علي أتت آياته بسرائيا أريد بخير قلب خير مرائي نوازك ونصواك باين فلم أقف غير المصطفى لست طاليا سوى ذكري كفور ملام ملائي هل الدين خير ذكر والسنة التي عن المصطفى صحات فتلك دوائي أريد بخير الله بخير ملائي تباسط والأسوار والهم مرائي أنس بخلاف بين نطاء وغيره يرى لبيب الخير عين عمائيا أريد بالخير خير وكل أي الناس قلوا الهزل وقفوا محمدا وإلى تروني دهرا جد برائي ومحمد خير العالمين محمد رسول أمين ذو سنا وسنائيا أريد الخير خير معايير خلاصك والأسواق وفي بليغ ليس ينطق عن هواه بل الوحي والتنزيل وحي سمائيا أريد بالخير عليكم بحبل الله للعبد واثقا فنرجو ينأوي الذكر نرجو شقائها جئت بخير قلب بخير منائها نبعثك والأسواء هل ذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لنيل صفائي وما الورد إلا ذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي وليت بخير فما في ذكر شيء الصديق أو ذكر غيره فوردي لداء العاب بعين توائيا أريد بخير الوفاء وقد بلغ الهادي وأدى الأمانة حظى حظه هادو شهد جاهي أريد بخير خير مرائي نماسك والأسواق والآلام قاداته خلق في نبينا لتقول ذي يفون مرائها ويدك خير خير مرائها سواء جليل أو حكير فما لنا سوى قفه دهران صباح مسائي يا رب جبريل أميني فشبتا على سنة الهادي قلوب أولانيا أريد بخير خير مرائيا سمسك والأزواج وكل مرائيا ولا يبتلين الله بزيق ولا هوى نعيش على البيضاء ولا ولا قشم ديني حظ محبنا بل اللب اللب لب بمحضاقا أريد بغير قشر ديني محبنا بل اللب اللب اللب بما ضاطائي صرى طيفه وهنا وكدت لحبي أطير اشتياقا والغرام بلاني أريد بغير الغرام خير مراني الأزهق والأزرار وكل وليلاء فبرهام مبتلى بأحمد خير الناس عين بهائيا أريد بغير الغرام علي وإنني مبرز أقراني أوان صباحي وقد تم فتحي عند مهدي وقد عنت جميع رجال الغيب تقفضاني تريد بخير فداه إلى مكة إلا لشم شذائها أريكم بخير بخير مرادي نفسك والأسرار والإملاء اليوم عين محمد وروائي وغير زماني كل فعل راقيا سوى من قرا نهجي أسير هوائي أريد بخير قال بخير مرائي نوافك والأسواق وكل من وما قلت شدحا ودعوى عريضة وابت جميع الفات انا ينال الدين رفع واري ومن شاء يأتيه قبيل مماتي ومن شاء نواه كأهل شقانيا أريد بخير خير ومن رام إفاء لنور إلهنا أبى الله أن يفيد إرم عدائيا أريد بغير القائل غير مرائيا نوازة الأهوال وكل مرائيا أركموا بالماحي دلال ألوف من يرى شرك والتسليس قال خلائيا

البناء رموني وما نالوا مرادا وإنني أمزق بالماحي جموع عدائي أريد الاسواق وكل يسومون دائما لله قديم وإنه تترسى بالمختال قبل رمائي أريد بالخير خير مرائي نرى سيهزم هذا الجاب حقا وإنهم يولون أدبارا رقاب إيمانيا القدر قيلهم ورجالهم وباءوا بغز زائر وبائيا وهل منع الماء طواف ببيته بمكة يوم الفاتح الضحائي وهل منه نصر كيانة دائما بكل بلاد الله ايتنا بقائي أريد بخير القار غير مرائي نباشك صلاة وتسليم عليه بقدره وآل وأصحابنا وأهل ولائه أريد Allah şeytilerde illallah التي تذكر عبدي لا اله الا الله لا اله الا الله

shaitani wa dunya ho la ilaha illallah la ilaha shaitani wa dunya ho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

بي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وباركني بفضل الله لا إله إلا الله ولا يكفي قليل الحظ لا إله إلا الله لا إلا الله هذا العبد كل لا إله إلا الله بين الله وبين الله أبا العباس فانزمني jemu ja de barhama kibritul ahmar bi domas sidi bara amma dee leen seet si ciibu yi bon ngeen ràññe bàyyi yàlla dafay tofal gëm leen sidi bara amma ciibu day tuxu weer day kaamil ashkurullah mañ moo albahrayni ñëw na sidi bara amma bada war nay gërëm ku ko tay ba bam xool asamaan Allahu akbar gaañi maa hee sidi bara amma mbal gi fees na jën waaye yëpp duñ hegg ndangaan borom jës bu ruuxu yeetaan sidi bara amma gaal gi yëpp na dund ba fees capitaine bay bëgga dee ak kiif yooyu gaal duñ bëri mene bar gaañi bala am am sa te mënoo caa ko jaaroo bag bu li ñëw na mooy gaañi bala am ma yenn njanaaw bu ñu kàddoo ma dellu fannaaru barxaama war na ma ciy kawteef gaañi bara am maa yooyu wax yeñ doon wax man daf may dolli xaal maj soo bu ko dégg day gaañi bara amma maj soo bi boo leen bara ñeleen sirru bacca ñoom dootuñ wax lu del gaañi bara amma ku bëgg a seydi baraama war ngay taqoo ñoom dang ca jëlee jës bara amma ibrahima juddo toloono piyawo fileeg ba ngay dee pempen gis na ninki nanka gani bara amma bu min wi jotee hammaama taxeel yeewu bakke bara ci la yeewu fanaan xaatira Sini bara amma bangga ande àndeeg siddiit kang ma ngir bañu gaañ ko noni ya di bempenga sini mar amma bayi fan yek se sa buntu kang ma Danyo galaman hamamatu ma hi don sini mar amma jani ñangor jañ fa fekkon jes bu ba ko boba ba tay ma ngay sapal amma mardi je ca sabu yo yor yor ba keman ba ande commandant ba Sëriñ Bara Amma bi commandant bu Kaolack toogee ba mu yàgg mu ne déglu leen ma damay teeru abal fayde gaañi Bara Amma ba waa réew ma konno fa buntu kan ma dama ngalamaan loolay hadaratul jami Sëriñ Bara Amma watir yaa gaare toppante ca couloir yi ma jëm ngeera keroog doy na kéemaan gaañi bara amma bi commandant bi toogee ba mu yàgg mu gestu gis baay dal di waaku toog ci siis ba sidi bara amma bi baraama kaddoo sama xol bi dafay leer ni weer maa ngi janoog laskandariya sidi bara amma ne aarifi sax maa ci gën hiidu hagguma ci xaar maa ngi janoog baxru malakoor sidi bara am yembu ya nekkoon ca biir kang ma jóg tasaaroo tabbi ca biir gaane ziyaare sidi bara am moomu ndaje képp ku koote woon ku dul baraama yembu ya danañ fett nit ña sidi bara am waaye fardu saani saalis baay ñas ak mayam dafa kun jajj bi yow lañ dàqoon sini bara amma sidina arifina yaaram bi bara mala man boobu lan waari moo doon bara amma sidina arifina yaaram bi bara mala bi sange nga ñu maa ul xëy bi bara amma doole janga baye ko xay bu xajul ci dunya alam ban ko garde lay lay sini barama barama baye ko xay alam ba jaar malaaka ya zikkar feetal sini barama ba ngay romb ca buntu am na waaju lay hoo manga naan lay baabulaahi sini baramba booba yaa nga sol sa mbubu manta mañ naan suleymaan ijaabu la zambi dooma sini baramba barhama nga naan may leen ma habal leen ma yoon déplacé ma soodaan sini baramba hatam jumoo biddiw ba ca fenqon ànd ak keroog lañ ñu jagleel suñ baay Sidi Barahama xatam jumo biddiw ba ca fenqon ànd ak mbooti mboon biddiw London Sidi Barahama biddiw baa nga naan subhaana rabbiyal aala moom la suuboo baxru malakol Sidi Barahama biddiw boobaa sowel suuy sant war na jaam nooru daa feñ na soodaan sidi barahama bàyyi nooru ñas lay way moo da xew su diina ji tey lambu naa ci gox yu nu wër ñepp naan ma jaraway boo yeboo sikki tëne naam yaa di mbër te du la roy sas nga gaañi daan fecc fii ñëpp nga ca tool ya di bay xet ma ñar du ma yaa di gaar saxaar du la moy yaay di maamu sharifu ibnu abdoulaye la ñu man dinaa ci leer gi ma duy ismulaay la def mu daway faatewul alal waxuma laak chef de gare yi àddina jay moom merut moom seetut ku mer boo meree mu romb way ma di sab géwél di la way jambu naa haway ku la moy mandu nga kenn du la joow jën wu mag way ku la moy niru mag nga kenn du la bañ gerte yaa ngi doon bëgg a wow kursu baa ngi kenn du fi raw yow nga ñaay li yow la ñu fay lu seeku jébbalu leen rëcc xol jaam bi ñu doy jaamu leen te mun xam ne adduna du fi way bokkeloo ci xattina ji bul di du la yaa di yay ki ñu may buur bu mag bi mooy kilafal fay du baa ngi ñas ku la xam xam yaa di fay du bi yaa di nooru yaay ki ñu may mag bi mooy kilafal fay du baa ngi ñas ku la xam ne yaa di fay du bi tey sol nga soose sol tukulóor sol nga naari faasi firaw sol nga soose sol tukulóor sol nga naari faasi firaw géew bi rëy na lambu jiyaa tey ku am sa mbër bu ko jey topp naan ko kenn mënu la yaman mbar mi fii yow tey nga daala am fa si mbër mbër yu ndaw yi duñ bare tey diina kenn ñemewul dékku bàyyi kon nga kaawa mbër yu ndaw yi fa kër bàyyi duñ bëree amul combat mbër mu mag mi yaay daaraan Cheikh Tidiane yor diina kenn ñemewul dékku bàyyi kon nga kaawa mbër yu ndaw yi fa kër bàyyi duñ bëree amul combat mbër mu mag mi yaay daaraan ngembam sëñ Aliou for na gaañi fay du moo di buntu ba baay mbay góob na mbay ma kuy na tin more xettal sëñ Ousmane Ndiayeen texe nañ dox ba gaaw na coy ajaban Cheikh Fay Omar Touré ti woyooyu ñoom mbokk lañ sëñ Omar digga Qur'an loolu mbot la kenn du ko kaasifa uññi mbot ya werante jàngu ko yow maxamaa moom mu tuxul subuloo feñal góor ga tafsiram arab olofam bum ci doon wedem loola te nga jëf yow ngir bëgg bàyyi cheikhaane naari raw nañ xaw sa yàgg dagum mbaaya buñ bëggee mu wer doy la diina a xeeb ko xeebu suufi yen yeew leen nekk baay doy naa kuy bëgg di bofanteen waay jëmmi Cheikh Tidiane yónneen baraamaay kenn su war baraamaay jërëjëf yàlla yàlla yokku sere doli lay ngeneel ba nga doy li nga def ci diina ji tey doy na ndam te jaraway ay baraama jërëjëf yàlla yàlla yokku samay dolli lay ngëneel ba nga doy li nga def ci diina ji tey doy na ndam jaraway allah allah la ilaha illallah allah আল্লাহ Allah, Allah, Allah, Allah. لا إله إلا Yàlla Lenny.